sayar soxna busa mo jur saydu mati mi jur cheikh sayar soxna busa mo jur mam aswalu mi way juru soxna jaratullah mi way juru ko tedd batay da ngay gis ne sayar soxna busa mi nga xamne ne way jur saydu mati mi jur cheikh ma numbe mook balla mi way juru sëriñ mamoor anta sali mi jur ko tedd batay ño bok ben bay mi mam xaram batay timit buñu bu ci walu walu nday gi da nga gis ne kuñu wax mam dan mam dan ñang gor la won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 da ngay gis ne ndoolu sëñ Moussa Ka wax na ñoo bokk ndey te bokk baay ci wàllu maam ak wàllu baay mu daldi fab bokk gajaay njënd gërëm la wàcc na loolu dana leer kon lii mooy ganek àdduna ak ma Ahmad Ndumbe ñi ñooy ay waajuram nii la bokk ak sëriñ Touba sëñ ma Mandumbe kañ la jaayanteeg Serigne Touba Serigne Mandumbe mi ngi jaayanteeg sëriñ Touba ci 1883 ci Mbàkke Kajoor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 mu nek fa ak wayjuram nek ci ron keparam fa la nek ba jàng alquran ba mokal ko mokalin wu rafet mu daji feti wo serigne touba am jang mépp mu jang ko ci mom bo xole serigne mohammedul amin job dagana mi wax na jangam mu kawe mi ngi ko jànge ci serigne touba muy téré yu magi ñu wara jàng yépp serigne touba xamal ko ko ba mu géeju ci xam-xam ba xam lam wara xam lépp daal di takko ak serigne bi jël léppam jox ko serigne bi njabootuk Cheikh Modou Xaban gep waye njabootuk Cheikh nyo gépp ñoo àndandoo bàyyi lépp luñ jàppoon ñew teew fi ngir dalal leen and ak yeen bis bi nga xamanteni bi, ñew ngeen ci benn pak ci pak Serigne Touba yi. li nga xamni nak mom la ci wax moy ci kaddu Serigne Koso. ñu ngi leen dalal jamm bu baax incha waxtaan wi day doon waxtaan woo xam ne dafay ànd ak teg baaraam ndax kilifa mën ngaa wax ci moom lu baax lu yéeme waaye wax ju nekk bu amee firnde dana dimbale ñi koy déglu ngëm nga mën a yomb moo tax dama leen di tënkal rek ma Mandoumbe mii ngay ñëw di gëstu si mbiram ñun ñépp xam na ni yoonu murid day bu fekkonte ni am mbaar la dañuy wax ni yeen ci jën yi ko téye mooy jën wii di ak dëggal ak bëgg sëriñ bi ak liggéeyal sëriñ bi ak àddiyaal sëriñ bi yenti jën yooyu moo téye yoonu murit yaari jën ya nag gisuñu ku ci nekk ci kanamu Cheikh Ahmadou Ndoumbe te loola fu wér lañ ko teg ay firnde yu wóor la jën woo wii di àddiyaal sëriñ saaliwu mbàkke ci boppam de moo wax ni ku tedd ki di seexul xadim wax na ni ahmadu ndimba lim ma jox kenn joxuma ko njabootuk sëriñ saaliwu ñu ngi fi ay jëwriñum ñu ngi fi ñu yàgg fegg ay kàddoom ñu ngi fi toog ñu ñu ñu ñu ngi ci kaw suuf kon day dëppoog li ñu wax ni ab junni mooy ki ko njëkk yëkkati jox ko sëriñ tuubaa cheikh moussa ki bind na mo ñëk fa fab junniy bo booleeg wuru wunu na ngalam tek ci loxol bamba magam musa sakula aduna kon addiye mom day tegtale ni Cheikh Mandoumbe jafé na lool nga gis ku nekk ci kanamam ci nim doon doxé ci walu haddiya liggey bi fanweeri gëléem ak juroom daana bayiko fi ñuy seuf dugub diko yobul ku teddi ki ca sax ma nekkon daaru ci digënté kër serigne abibu ak kër serigne soxna khadi gayna soxna khadi fatma sax momé ne daana di bam fess ak pep njabootu Serigne Touba daan ko jëfëndiko di ko saafara woo loolu na mu dem ba serigne bi defan ko mu nekk jëwriñu kep kuy tërbiyewu di wut ngeerumul yalla ci tolu Serigne Touba ba bis mu woko mu ñew mu bind lettre ni Ahmadou def na la jëwriñu kep kuy wut ngeerumul yalla Cheikh Moussa Ka bind nako Bamba ko jox mbindum loxom ne ko sasal ma say morom jëwriñ nga tol bi ay borom jaxaari baykat metti kon adiyé bi lérna na liggéey bi lérna yar yoy nak munta am lulul dafa lolu ci kaw ak dëggu ak bëgg kon lolu rek la leen mën jundjel ci ki ngeen fekk ci Cheikh Ahmadou Ndoumé Xabaan la ci dess li ngeen soxlu wo lepp nak buñu démé ci barab bu mag ba serigne Ousmane nga leen ko gëna léral waye dal leen di sante bu baax di leen gërëm di ñaan yalla bar jotaay bi bok ci jotaay yi nga xamni yi gëna a la jotaay yi Serigne Touba gërëm te seen liggéey bi ñaq wu ci rot yàlla na leen ci Serigne Touba fay lu kawe seen jot. suñu liggéey jóge na fii. waaw fekk Cheikh Ibra Fall fii xuru Màkka. gànna ji ko. bay ñëw. bay ñëw si waat Saam gii. Cheikh Ibra di ko gunge. suñu mënu mi néew ko mu mënut a wàññee ko suñu mënu mi néewul ko wàññee ñu ñuy jëw rek di dox ba mu yàgg mu ne ko mu ko yoon. ba fa ñu wàccee ba mu bañ tàggoo ba Cheikh daal wàññee ko ne suñ mën na bee moom muus mun waaye mu ni fu ñu tàggoo rek ba léegi yoonu saxaar gi jaar fii mu ñu tàggoo tee ba léegi lay jaar